xam nga ñun dañoo créé woon mouvement boo xam ne ànd defar Kaolack li ko tax a jóg mooy fexe ba nga xam ne nii ñi nga xam ne nii dañuy yëngatu ci wàllu développement euh, ñu jóg pour euh, euh, wuti maire bi mais actuellement tamit ñu commencé di liggéey pour loo xam dana am njariñu population bi looloo taxoon bi inondation bi amee ñu décaissé un montant de cinquante millions ëpp na ko sax ndax après yokk na lu gën a bari war na ay soixante millions euh, pour jox population bi mais ndegam dañoo waxoon ne ndimbal na ci fekk loxol boroom ak def lu leer ñu bëggoon suñu suñu suñu ñu ko doon def euh, ñëw retour ci ñun pour ñu xam ñaata famille lañ atteindre biñ ko xoolee atteindre nañ lu ëpp mille familles jeexagul sax ñoo xam ne wax dëgg yàlla fekkoon nañu jariñu ci. Euh, jariñu ci lenn la mooy ñoo xam ne ni dañoo inondé soxla woon ndimbal ak ñoo xam ne nii seeni kër dafa taawoon et en même temps tamit ay école waaye loolu dama ci remercier population bi ndax man effort bi ma def ak ñi ñu àndal effort financier la wala effort matériel mais population bi yëpp dañu futtiku jóg ànd dem ci biir kër yi jàppale leen génne si ndox mi te fayuñ leen dara kon nag loolu moom mooy ñun loolu la ñuy wut mooy Kaolack waa Kaolack moo mën a defar Kaolack

gis ngeen ko même États-Unis réew yu ëpp doole ci àdduna bi bu catastrophe amee danañ jóg génn ay dund dimbalee ko ñi nga xam ne nii moment boobu waroon nañoo liggéey te liggéeyuñ aspect boobu rek taxoon ñu def ko.